Mbargou Badiane ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi FM. di d' accord ñu door rek li nga xam ne moo fi xew bu yàggul maanaam ak accident bi nga xam ne moo amoon Kaolack gannaaw accident bi maanaam li mu gën a yàq euh, doonte ay bakkan rot na fa mais yàkk na tamit leneen euh, parce que mhm. gis nañ ci ay jàmmarloo diggante Diboli waaye it fële tamit euh, ci suñu territoire ñàkkul am na ay yàqute yi nga xam ne ay Maliens am nañ ko mu am benn <laughs> soulèvement ak justice sociale bi nga xam ne nemmeeku nañ ko tey ji euh, nan nga jàngatee mbir mi. li ma jàngatee mbir mi mooy euh, ñu dellu Sénégal yi d'abord ñu li ñu leen xamee ñu dellu ci mooy nekk ay nit unité. Mhm. nekk ay nit unité mooy bu situation amee ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy responsable ci loolu ñu bàyyi ñu réglé ko niñ ko daan ko réglé aw niñ ko daan réglé. Mhm. il s'agit dafay am bu yàgg mi ngi doon am. di am tey di am di am suba beneen yoon bu dul gën a suba tamit ndax fii circulation nga am accident di am. Mm-hmm. bon nag bu accident amee euh, ni muy amee ci avion yi di ko amee ci bateau yi di ko amee ci yeneen yu a ñëw yi nga xam ne kii la même di ko am di ko amee ci satellite yi sax di am accident kon noonu lay amee ci circulation bi nga xam ne dafa ànd ak ay oto ak ay nit. Mm-hmm. tax na bu loolu amee nit ñi dañoo war a seen xel ci. lan mooy lan mooy lan mooy nité mhm. lan mooy nité ndax euh, am na ñoo xam ne ñoo chargé wu régler problème accident seet kan moo tooñ assurance fay ñi moo fay ñi ci gaañu assurance euh, dédommage ki tooñ ñu yoon ñu atte ko ko defee bi continuer waaye su ñu bëggee ñëw xajal seen bopp xam ne xamuñu euh, lu mel ne setter na bu chargé carburant nga nekk fa di ko di ko di xeex ak moom ba naan dañ koy taata dañ koy kii cette année bu tuuti carburant cinq mille litres bu ñu ko taaloon ci biir Kaolack fu leen jëm mhm. fu Sénégal yëpp jëm kon fu Kaolack jëm kon mhm. ñi ko def kon fan la ñu yore fan la ñu fan la ñu jëmee nit ñi ah loolu nit du du ko am amul xel sax bu def loolu wax na koo xam ne tamit Sénégal dañ leen foogoon ci ñun ñu am xel ñu bañ a yem ak yeneen réew yi nga xam ne dañ ñëw te bokkuñu mhm. bokkuñu ay nit lañu sart Euh, ñoo bokk ñuul wala ñu xees waaye bokkuñu xel bokkuñu xalaat te bokkuñu culture comme bokkuñu tamit situation bi nga xam ne moom la ñuy doxale di fayantu ak di ak di ak di di indi ay ay ay émeutes yoo xam ne amul sens. Mm-hmm. et ku ci nekk. Mm-hmm. ñun borom oto yi wax dëgg yàlla ah, euh, am nañu lu ñu naqari trop. Mm-hmm. ndax euh, dafa mel ne ñun ñooy ñooy noiru ñëpp ci àddina. kuy manifester bu dee lui taal dem ci oto yi bu dee keneen dem ci oto yi lu lu xew nañ bàyyi oto yi ñu tranquille nga li nga li nga li nga liggéey soo ci amee problème rek demal nga régler ko foofu d'accord tout tranquille gis nañ ne ba mbir mi mhm. amee ba coow li amee ba tey euh, mhm. ñaari côté yëpp muy Sénégal muy Mali euh, mhm. ñu ci nekk seen i autorité dañoo jël ay ay mesures euh, bokk na ci circulation bi dem ak dikk bi ci jëm ci gros porteurs yi tey fan ngeen toll ci situation boobu waaw xam nga xam nga autorité tamit dañuy dañuy jaaxle suñu amee nii te xamuñu ko miinuñu ko hmm. ak euh, li ci lim mën a jur euh, ils soo obligés quand même ñu ñu ñu ñu ñu réagir ci façon boo xam ne du bokk ak sax bi ñu xam bi ñu xamee woon hmm. mais li ko def lépp mooy ni situation ni situation bi demee ndax ñi am xel man bi bi bi aussitôt bi ak bi demee hmm. sama représentant bi nekk euh, Tamba ak ki nekk Koupantoum laa ne leen nañ dem nañ dem ci poste police bi ñu benn oto bu mu jàllate jël la oto yëpp nañ taxaw foofu. kon yéen ànd ngeen ci ah, ah, ah. kon yéen ànd ngeen ci. non déet am am loolu laa wax avant avant kii ñu ngi ñu ngi la ñu ngi la taal ci ci kaw tax. Mhm. ah donc nit ku nekk da lu nekk am na am na lu ko gën. Mhm. am na am na situation boo bu naree xew taxaw moo ko gën. Mhm. kon man leen nañ nañ taxaw en attendant que situation bi rek ci aussitôt bi ñu bi ñu taxawee am na ñoo xam ne sax dañ ñu ba Kaffrine ko defee suñ suñ mënu jaar kaw ñu jàll jaar si Diourbel euh, ñu ñu ñu ñu d'accord ñoom seen soif loolu lañ bëgg. Mhm. waaye mun liñ liñ liñ doon liñ rek mooy apaiser la situation. Mhm. ndax ñi nga xam ne ils sont inconscients ba ba xalaat yu mel noonu boo bàyyi ak ay auto étranger wala auto sénégalais ay terrain yoo xam ne dañoo def carburant wala wala keneen fiil wala uh, ammoniac nangam nangam. Mhm. te ñoom xam nga xàmme wuñu sëb bu ñu bëj ak bu ñu boxam c'est-à-dire xàmme uh, ak kayitu cent franc dañuy dañuy taal boo xam ne Kaolack yëpp mënoon na ci tàkk ah. Mhm. buñ ko buñ ko defal loolu musiba mel noonu boo ko gisee li gën mooy nga nga nga taxaw pour empêcher kii ci aussitôt le Mali réagir. yow jàpp nga ne mer a tax ñu koy def wala sax banditisme bee tax dafa am lu ñu bëgg a euh, faj euh, ñu ñu profité ci occasion bi wala. léegi man dama yaakaar ne dañu xamul. Hmm. meruñu bëgg ñu faj dara mais dañoo xamul mooy danger bi ñu bi tax ñu ñu def li ñu bëgg a def nii. d'accord ndax ñoom ñëpp ñooñu ñëpp dëkkuñu dëkkuñu foofu ci tali. Hmm. ku nekk dëkk ba nga dëkk dëkkoo ci nga dëkk sa tali bi pour oto yi la. Euh, kër yi pour nit ñi la que kenn ci nekk boo boo ñëwee ci tali bi yaa fekk si oto ci place bi yaa fekk si oto ci yoonam. Mm-hmm. ah mm-hmm. da ay nit bu ñu fekkante ne ku ne day mas dañuy mas laa ku nekk da jéem a dox nan lay def ba oto dem yoonam ndànk nit ki dem yoonam ndànk saret bi dem yoonam taxi bi dem ku nekk dem ndànk mais bu ñu yaakaaree ne ñoom rek ñoo moom ñoo moom tali bi déedéet tali bi bu oto la camion yi dañuy dañuy lii dañuy la camion yi ñoom ñooy defar tali yi. sans camions yi benn tali du fi am li ci mooy ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi wax ne camion ceci camion cela ku ci nekk boo nekkee Tamba wala nga nekk Matam wala nga nekk foo xëyee jënd ceeb jënd café jënd sucre parce que am na camion bu faa ko mais dëgg la dëgg la monsieur Badiane hmm? camion yi am na solo lool waaye bëri na hmm. tamit accident yi nga xam ne dañ leen di tudd liñ leen di tudd ci accident yi bëri na accident am toujours ci àddina te te day day day day bu ñu ko bu ñu ko kenn ku mën a doon ku ci nekk da nga am responsabilité hmm. wax naa leen fii depuis des années ne leen nañu def deux fois deux voies hmm. ci yoon bi nga xam ne mooy Dakar Dakar Kidira hmm. suñ ko defee accident yi dina wàññeeku depuis trois ans maa ko wax léegi sax dégg naa sécurité routière ci wax parce que parce que boo naa léegi ñu ngi ciy wax mhm. donc euh, lu ci nekk dafa am koo xam ne moom mooy responsable loolu na xool nan la mën a def ba loolu loolu li nga xam ne moom moo ci moo ci moo ci le minimum possible ci accident mu am mhm. su ko defee bu loolu amoon ñu seet dëkk bu mel ne Kaolack dëkk bu mel ne Fatick mhm. dëkk bu mel ne Gaye dëkk bu mel ne yooyu ñu ñu def ay périphérique yoo xam ne oto camions yi duñ jaar ci dëkk Hmm. camion du ñaar ci dëkk certes ce qui est bu ñu ko defee tamit nit ñi ñooy ñooy jóge foofu ñu nekk dem fekk camion yi fi ñuy jaar. fekki camion yi fi ñuy jaar. Ah, leen di jaay ay kii ak di def parce que ci la ñu ñu ciy dund. ñooñu ni nga gisee Kaolack noonu feneen fu mel ne moom oto yi fay jaar ñu naan gêné ñu ngi ñu ngi dundal des milliers des milliers de personnes yoo xam ne ci ot ci loolu la ñuy dund. Hmm. mi ngi mel ne Sénégal yi ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu li ñu am habitude wax naan ñu ñooy dundal Maliens yi ñun ñu au contraire Maliens yi ñoo leen di dundal. justement xam seen bopp euh, ah. justement Maliens yi ñoo leen tey jii euh, nu camion demul camion dikkul yéen lan ngeen perte li ngeen toog ñetti fan yi daanaka euh, liggéeyu leen. li ñu ñu perte si ñetti fan. xëy na sax du du grand chose ci ci liggéeyu camion. Hmm. mais li mu li mu gën a li mooy. ñi nga xam ne Euh, ñi ngi doon liggéey ci port bi situation bi nga xam ne moom la moo doon génn ci port bi euh, liggéey euh, influence financier bi tam am jóge ci port bi nga xam ne day tasaaroo ci partout am na koo xam ne mosul gis port te ci poor bi tax muy dund am na koo xam ne mosul gis géej te ci géej gi tax muy dund donc ñu ñëpp bu ñu yaakaaree ne oto camion yi dañu leen dañu leen a gêner parce que camion yi ñoo leen di dundal ndax ñooy dundal port bi port bi mooy dundal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen de ce fait nit ñi dañu war a am xel ci cohabitation nit ñi dañ dëkk ci jàmm ku def ay erreur amee ci nit ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam ñu ci dem doxi seen liggéey waaye buñ fi nekkee di fayantoo xam ne xamoo lan la xamoo fan la xamoo nu mu mel ñu ngi yaakaar ne malien comme li ma doon bëgg a wax ñun ñun dañu perte certes malien daañu perte mais bu ñu perte tey mën nañu rattrapé wu ndax am nañu huit aéroports yoo xam ne mën nañ fa dem il faut ne ñuy sénégalais xam loolu am nañ huit frontières le Mali a huit frontières yoo xam ne bu ci nekk ak port boo xam ne mën na fa dem euh, jël fa marchandise am. te loolu fekku ci Sénégal wala. ah sauf le fi Sénégal waaw huit yoo xam ne mën naa la ko limal bu ci nekk daf Mali mën na fa dem jël fa marchandise am ñoom suñu taamoo Sénégal parce ñaari ak ñaari ñaari mbir la woon li ñu doon waxtaan ak ñoom mooy Sénégal jege nañu set. bi ci des mooy dafa am sécurité sécurité boobu nag bu ñu ko dindee maliens dañuy dañuy dañuy fii jógee dem seen yoon dañuy dem feneen te bu ñu demee feneen euh, bu ñu yaakaaree ne transporteurs yi ñooy ñooy ñooy subir euh, les dégâts dañoo juum ndax li li oto malien yi di dugal ci Sénégal li bateau yi nga xam ne ñoo leen di indil marchandise di dugal ci Sénégal li nga xam ne moom mooy trafic bi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal puisque ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daañu ko yëg te port Sénégal dana tëj te bu tëjee daanaka Sénégal dana loo xam ne. kon bu ma la déggee ngay bu wëyee euh, économie Sénégal euh, dina ci dina ko yëg. day am day lool sax yàlla tere bu koy nii parce que bu Sénégal dana sooxe lool xam ne dana bett ñëpp dana bett ñëpp ndax lépp nga xam ne. Euh, mi ngi dugg ci ci ci ci économie mi boor benn la ci industriel yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci senegal la majeure partie li ñuy liggéey ci Mali la jëm wala wala yeneen dëkk yi nga xam ne Mali la ñuy jaare comme Burkina Faso comme euh, comme Bénin comme Togo ñëw ñëpp Mali la ñuy jógee te tey recette ah? douanière yi tamit mën nañu cee génnee euh, li nga xam ne moom kooku moom day day day day cité de day day day site libre lay def ko xam na ko site libre ci site libre la jëm mais ñeneen ñi nga xam ne ñooy ay industriel machine usines yu bare ngi fi yoo xam ne euh, mënu du ma leen di leen publicité mais usines yu bare ngi fi yoo xam ne li ñuy liggéey lépp ci ci sous région bi la jëm ci région bi bunt bi mooy Mali Sénégal moo amul moo amul moo amul moom la moo enclavé amul fenn mu mën a jaar ci ci dem ci sous région bi te te jaarul Mali. te jaarul Mali ndax am ngeen amul amul beneen yoon. ndax beneen am. ndax am ngeen benn euh, information ci décision yi ñu jël. Ah. kañ lañ koy yëkkati. waaw léegi sëñ ministre malien de transport dana fi ñëw. Euh, bala bala yàgg. Hmm. bon li ci des nii ñun ñu ngi seet. Euh, même la situation bi en en en ci côté Sénégal calme na. ci côté Mali aussi calme na mais dañu xam ne Mali ak Sénégal bokkul Sénégal dafa am gouverneur gouvernement boo xam ne bu stable la. Mhm. boo xam ne am na ay ministre am ay gouverneur am nangam nangam ñoo xam ne dañuy déglu seen euh, seen ndigalu kilifa. Mhm. par contre le Mali caq bu dagg la amatul léegi kilifa. ah comme réew amul kilifa la fan yëpp di commencé depuis depuis deux mois ñu ngi ñuy attaqué oto yi ci yoon bi di nangu seen xaalis ils ont tué récemment ah ci ci ay attaques yoo xam ne xaalis lañ doon wër. kon daal da ngeen cee am da ngeen tiital fu da ngeen tiital fu mu nekk nii chauffeur sénégalais yi. bien sûr gisal nañ sax gisal nañ leen dans la météo euh, Mali amatul kilifa te ñi ñi ay bandi bandi moom day day seet fu mu mën a amee xaalis rek euh, seet daañu daañu seet Mali daañu seet Sénégal mais gisal aussi ndax ak fan yii fan yii doon passé yëpp bu ñu attaqué poste contrôle yi la ñuy attaqué dem jël xaalis yi nga xam ne moom la ko moom la fi agent yi di garder. en même temps nanguwaale xaalisu yenn yenn chauffeurs yi nga xam ne ñu ngi jóg ñu ngi jóge Sénégal wala ñuy jógee euh, feneen ci Sénégal. Mhm. ak ah, yenn ah, ah, même chauffeurs malien yi. ba tax na euh, ci fan yii passé dañu ne woon chauffeurs yi bu leen guddi bu leen jant sooyee ci gaare leen ba suba ndax attaques yi souvent euh, guddi la ñuy guddi la ñuy filé te dañuy dañuy tànn oto yi nga xam ne yaakaar nañ ne dañ ci am xaalis waaw léegi nag su loolu amee bàcc nañ ci profité ndax. pratiquement ma yi chauffeurs yi ak ak transporteurs yi ñoom taxaw nañu ci bu kenn laal oto sénégalais mais daan bi dañuy bàyyi bokk di ñu ñëw de euh, barki dégg dañuy ñëw démonter batterie yenn oto yi virus seen carburant euh, force chauffeurs yi jox leen seen xaalis bi ñuy rawaan donc euh, affaire bu mel ni bu amee situation yi day day day day day day dañ ciy profité ñi nga xam ne ñoom loolu moo doon seen liggéey. Hmm. bandit kon nag ñu mel ne loolu dafa jara moytu bu baax a baax a baax ci réew yi nga xam ne moom lañu ñu yaakaar réew yu am am am am am xel lañu mhm. mu mel na Sénégal te ñëpp ñi nga dégg ñu ci wax te xamuñ ci dara ñu noppi <laughs> ñu noppi te maa ngi demandé aussi yéen seen morom station rajo yi mhm. euh, ñuy waxtaan ak d' accord am nañu droit ci jox ku nekk tàllal keneen micro mais képp kuñ taal micro nga nekk euh, euh, benn waay boo xam ne Euh, da nga da da nga da nga nekk euh, pyroman cest di wax luy taalum réew jarul ñu koy teg waaw jarul ñu koy teg am na ñoo xam ne seen i wax jarul teg set mën nga ko jël mais boo ko jëlee xam ne ci ab la ndax li muy wax musiba la nañu def nii nañu rey ñii nañu def loolu kenn du ko wax mm-hmm, ah waxee waxee man bu ko nit waxee rajo war na am responsabilité bañ ko teg ci benn ondam nit ñi gën a ko dégg. waaw lépp luy safaan moom di ñaan daal mm-hmm. ngeen ngi waxal ma mm-hmm. ñu ñi nga xam ne xamuñu dara ci li ñuy wax et bu ñuy tàllal ci micro. ñu tàllal micro koo xam ne lañ ko tàllal micro liggéeyam la mu xam ci dara. ñoom yaakaar ne woote gi nga woote dinañ ko dégg incha allah. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mbargou Badiane. Ah, ok.